alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. loolu مسجد كذا مقر الله في كل شيء في الله كنا أي خلاص أو منهم من يوم في لا ما في من ولا يسوع على كل جرم عند أي خلاص هو كل شيء في جرم عند كذا كل ما في سيرة رين كذا كل جرم كذا على كلام أبي الأمر علي الأمر عليك لا لا على ما يقام بمر علي كل ما من وهاي كل شيء إلى آية آية في الكتاب آية القرآن على كل كذا كذا كذا أشان الله بفنك بناس من مكة ajaban bi seen sa an awxeenaa ak woyu suñu ilaa rajulin ngir ci waaye mënum di bokk ci ñoom waa Makka dañuy tumurankeel di ci bokk ci ñoom man yàlla ma def ko mu di ñeneen ci ma way ci suma mboyu am na ka mbiri bir ansur waadoo ñu ñu naa waadoo naa fi ñu ma ne ko waadoo ñu ñu ndax di wa bis bi dëgg na suñu ne amono gën ñu ana la ma taaj na ko la ñu leen xadam ci suñu dawal bi daa jub rabbi ko borom seen mooy eh, lépp lu ñu def dëgg jëf ji wala altaas ma ñu def innaha sax naka njëga alquran masirin jabar la mujj ngir aji bi inna alquran jabar la muhammad ab jabar la waaw waaw muhammad war na doon yonente bi yàlla ma ne ñu fa ba ci ummata ni muhammad war na doon yonente bi yàlla doj nag moom mën a nekk yàlla sax dina rabbukum naka borom seen laaw yàlla ala si yàlla mi nga xam ne xalaqa bi nga nañu sama waatu asamaan juróom yaar wala laa ci juróom yaar dina sawaata fi ñu jubloo awaa bi jaara mu def lu mu dogal lam rek nit diggante mu léegi maa ngi sa fi ñu dina aju ramu ila man daal nit mu léegi la sa gën a indi gërëm baani kum doon ñu aju lu mu doon di aju dogal laaw mooy rabbi kum ko borom seen seen doon ko mu ko jaamu ak rasu ko ko ko ko wa ko dem mar jokum doon waaw seen jamono ñu ñu mboole ñu jël na seen moom waaw de waaye dana ko yàlla doon xaqan dina ma dëggal dëggal dina ko naka moom yëpp dana dina ma foofu alxalqa bindal bindal yi ñu ñu do ko ñu delloo ko ga dëkk di yëpp ci ñu fay dina na am na gëm ñu am do dëggal bala bi dara ko na fi de ko ci dum naaru ngeen dina na ko horo ak ñu do war na ci ñoom sawab na naan ñu naan ñu ci dëgg ndox ñu ji wa fa ñu ñu wala ali ibra ji nit ma tan wa ci ñu fa ci yëpp ci ngada o moom buur ali bi ñoo bi xam na jaala bi ñu ñu sant jant bi ya am ni la wa qamara ñu leer nooro mu leer gu ndaw wa qadara ko tam dogalal ba mën a fila ay wàccuwaay ñun ñoo fukki wàccuwaay ak juróom-ñett yi nga xam ne ci la weer wi wàcc dañuy sukkandiku yaari guddi bu fekkee weer wi dafay tàng wala benn guddi bu fekkee buñ la di tàng de bu saala bi ñu doon xam ne ci ñu ñu wax ni wala sa dal ci sa ma xala xala bu ñu yàlla sa li ko ñu wala wala ko la ñu ñu dëggal ne ko ci ñu ñu dëggal la ya fi ta ko wala ko ñu xam ñu wax ñu wala ñu ñu xam ne ñu ci ila bi ñu na ka ñu na ko ñu dëggal ñu na haru dëkk ma xala xala ñu dëggal ko wala ci ma war jaatu ma ñu yar ci malaayika ak jël sa weer ak si biir wala mu leen dund ci suuf ñu dundee ko ci daj ak si géej ak si yoon si garab ak ñu dundee ba ah bu fekk ñu fekk rek ak ñu dund xaw ma ñu waaye ñu ba taxaw ñu laa yarjuuna rabbahum liqaa'an bañ ñu ci dëkk wara bu ci tan bil hayaati dunya ci dund àddina wax naa ne tey dal jaar ci àddina wala bu ñu ñoom na sa bëgg ñu ci ci wala ci ñu la ma woon sax waa ci naaru sa xaraad ñu ko wax ci ñu ci ko ci sabu ci ci xaraad ñu yàlla ci na ga na ah ñu dem ñu ya mu ñu dem yàlla ci fa na fi ci buntu dañuy gën a daw ñu jàpp ñu ci ci ñu naaru yoon yonent di gën a ci ñu jaal gën a ko yóbbu daaw wala Allah mo borom ci doon réew de ko ñu doon ya ko ñu doon ñu doon daa jaal gën ci waan ba ci laam la ya fi baaw ñu jëk topp ci seen am na ko mu nga ay ci doon ñu lay ñu waaye ci biir biir bi dañuy laaj ndigal li ñu ne ndigal li ñoom dañuy doon suñu wax dëgg wala yaa ngi gën a yaay donte suñu baaye yàlla dinaa fi ñëwaat ñu firi sarwaat ndigal ma di ci jaale ñu seen yokkante seen seen gaaye seen bil xayri fi ñun ndax bu yokkante natalee du leen dem ci ajana ci jënd di yokkante yàlla daf leen di gaaye ndigal ñu leen di gaaye aw yi kon ñu yéen ala ci mujj wax de dana firi suñu bëri alif na ñaare laa yi ñu gëm ci ñu dana firi dana ñu dëgër ci ñaan laa dina ragal ñu xaanaa dañu fi yow ma ñu jox de ñu ko doon ñu jox de yow yaa ma seen doon jox na ñu saana nit bu ñu jëfe ñu ñu lor daana mu ñu xam ne lu jël bu ñu aw xaay bu ñu tëdd ñu aji jëkki aw xaay bu ñu tëdd ñu aji taxaw wala ma ko fet naa dañu ñu ñu ñu tëdd raw waram maram ñu tëdd yaa ngi leen yor daana ko ñu ñu ñaan ñu la gëdum ma ko jël jëfe ñu ko ko salu ko dañu yaa ko ñu ñaan ñu ñaan ñu ko wax ci lor ak dëgg ko wax jiiru ma rafet lool mu dugg na li ngay wedd ma kaana la ñu li am na dañ jëkkër wala xanaa rek na min ko di jëkkër min xali ci ngëm ko jëru la na ko ni dañ la ko jaay ci jaar ni ko leen ruf ñu na yeen ñu ngi ñu na ji jëkkër ma kaana ni ko ñu ñu di jëm daal ko jëm nañ xale dañ ñu le lañ ci dañu do al qamu al mudri ñu ñu di ñu jaana ko ko ñu ñu xanaa yu bëri yéen dañoo yéen ñu ngi jublu ci ñun daal di leen jublu naa seen. ñu ngi ci réew mi ñu ngi soog a tànn ñu ngi soog a indi jublu. yéen saa si dégg ñu jàngal ñu. Aliou ci ñun ayatina alquran ci ñun wax ne bi ñu naan ne ko ana dañu bëgg ci lépp ci ci ci Qur'an ci alquran ko ya ba ñu bëgg alquran ci yàlla ñu bëgg ci dafa ko ci yàlla ni ci bëgg ñu alquran ci bëgg ñu gën ay bëgg ñu ñu wax ko wala nga tax ci bëgg la ñu xam nga dafa ko ci yàlla ni ko nga xam ma la ci ñu ñu ñu ñu bëgg la ñu wax ko ñu xaar ci ci yàlla bëgg dem rek ñu fay ñu def ci dara ñu fa ñu ñu ñu tax ya ya la ñu def ñu ñu ñu ñu ñu sama xaar ñu ma rek ñu ci ñu ñu rabbi borom ci ñu aba ba ñu ñu ñu di fa ñu di aju na pour nga xam ne sa laay def ci sa yàlla maa ko lay déglu jàll ci li nga xam ne ci yéen wala ak rajo yi xamante ne leen bés bu mel ni dafa la bëgg sax naa te ci ci ñu doon dund ñu xam ne dund dund dund naa bi ñu ngi ci ñu fi ñu wax dara ak la tax ñu dara ñu ko ak ñu ñu bay ci ci wàllu ñu ko ci wàllu la dañ ko ci ñu la na ñu ko wax ñu ko ñu ko ñu ko ñu traité ci bi ñu wax wala ko ci ñu ñal ay ko ci ñu ya bi da ci jaar ko ñu ñu ko ñu ñu ñu way ñu ko ci am ñu ñu ko ñu ya bi ñu da jaay ñu ñu la ñu yalla ma la bi ñu ñu war ko ñu ko jaamu wala am ba ñu ko jaamu wala am ba ñu ko jaamu wala ko ñu ko jaamu سبحان الذي يرمي من الله تعالى ويحل وكل دين ومن صلى لا على الدين ولا على بكل قوم بما يأتي أثناء الجر بها ولا تبدو بها غير في جنيا سبحان الذي يرمي سلم يفعل لا تنكر أما يبدو كما يبدو كما يبدو كما يبدو وما كان من كل هذه لا أمة ولا ذكر غير في اليوم جزء ومن كان من درجة آدم بجنيه بس جنيه إبراهيم بس جنيه هم إبراهيم parce que nag ñoo ko ñëwee ko de loolu laa ko doon ñu diggante ba mu baax te ba kat bi jigéen ñi nga bëgg bëgg ñoom de. parce que ñoo ko doon wax ne dañoo diggante ñoom dañoo sori ñoom seen bëgg bëgg ñoom aussi ñu ngi diggante ñoom. yow ak ñoom dañuy wax ne daa une juróomi pour wax ne amul ci lu mu ah ci kaw bi mu rëdd ci kaw bëri yow dañuy moom dañuy dëgën dañuy ñu kaw ci dëgën ñu dëntu dañuy ñu dëgën dëgën dëgën saa yi la dañuy ñu war ñu ñu ci ñu saa ñu xam ñu saa la saa ba ñu saa ba ñu ko jàngat dañuy ñu dëgën ñu dëgën ñu dëntu asra yi ñu dañu kaa ñu fekk ci defe ñu ri ñu ñu ñu kaa ñu ñu ñu ko ñu ay tay wax ci dañu ñu ñu ñu ko ñu ñu ñu ko def wala ñu ñu def ñu ñu ñu xam ne ñu ko ñu ko ñu def la ñu ko ñu ci jëre ba ru ko ko wax ko ñu la ñu ko ñu ko ci ci jëgaane la ñu ñu ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko لا لا تكلموا من غير ما تجيبوا لأبي ربي وجاء أن تتكلموا أن يجب تجيبوا من كل مكان تتجيبوا بكثرة وكان يتجيبوا من مكان ويتجيبوا على بأسنا ñu jëf ñu jëf ñu man ñu a ko ci bala wa ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu

waaw wala yàlla yàlla dafa doon wàññi ñu nga daal di naan gën ci gën a mucc ci aljana yàlla ngeen di woo ñu ngi leen dem aljana moo wax leen laa ilaaha illa hu rasulullah aljana si wax am na mu gën a gën a suuf aljana lu ci jëkk jooy liir bay def xim jubbi rek jooy koy tëj li koy tegu mooy jooy yi ñu ngi leen tegu li koy tegu mooy dee aljana si gën a ñu wax am na ndóol gënum mu ngi demul yàlla di jóge mu ngi naw yàlla mu jëm sa jëm mu jóge yàlla rek yàlla di jóge juróom dafa defaroon kër aljanna jan doon jéem a defar ci àddina defal kër daal ingénieur yi ci àddina boole na leen lépp lu rafet rek def na ko jëkkër ga lépp lu na ko jëkkër ga ne nag ku ñëw seet kër gi daal na seet ndax daañ ci gis ayibam déet fu ci gis ayib nag daañ rey ku mën tëj bi rek ne la seetal ndox sama kër gi am na ay nga ne déedéet bee benn wàllu ñëw mu wan ko kër gi ne ko seetal ndax am na ay mu ne ko am na ñaari ay mu ne ko nag ko wax benn yow nga wax ñaar mu ne am na ñaari mu ne ban ban mu ne ko dana ràpp te danga dee mu ne ko ndax am na kër gi du ràpp te borom du dee mu ne ko waaw mu ne lan mu ne aljana mu daal di génn kër ga rek dem wuti ko ko tuubal tuub bi jaamu yàlla ba dee. yëkkat goo xam ne du ràpp te du dee daal moom moom la bëgg mooy aljana allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ilayhi wa sahbihi wa sallam wa sallam ilayhi wa sallam wa sallam xamni wala ñu ko tambal do ci yalla ko ko jëm ko ko defal do ko ko yalla ko ko ko ko ci ñu ñu ci ko ko ñu ko الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وقال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير رحمة إلا بالله للذين aji nekk la ñaan ñaaña axsanu réewénal nañu ci gëm yàlla alxusna aljanna ñi nga xam ne réewénal nañ te mooy ñu wax la ilaha illallah muhammadu rasulullah wax leen ko ñu yéwénal baax baat boobu lu leen ñaal aljana leen ñaal fa yàlla de njëg ak laa ilaha illallah muhammadu rasulullah caabi aljana moo di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah yonent na ne mu ne ko xuyu naa la yow yonent mu ne ko ndax xam nga luy xàq yàlla ci mu ne ko yàlla ak leneen dama xam mu ne ko xaq yàlla ci jaam yi moo di wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñeetal ko bañ ko sakkal bokkaale de ma ndax xam nga li xaq jaam war yàlla su fekkee wax nañ ko mu ne yàlla ak leneen dama xam mu ne ko xaq jaam yi war yàlla mu musal leen safara xarfe leen aljanna de wa ziyaadatun ak ak bu leen dugalee aljanna ba noppi nag daf leen di dolli de ndolli nga moo di lan mooy gis xar gis kanamam nga de ni ngay gisee weeru badar dara du dox sa diggante ak moom ñooñu aljanna su leen yàlla dugalee aljanna danañ gis loo xam ne bët mësu koo gis mukk nopp mësu koo dégg mukk mës la toq ci xelam doomu aadama ci loo xam ne bakkan dana ko baneexoo ak bët soo xamee ne nuur nañ ci xéewal googa da fàtte ne mos na ñoo ne ci àddina yàlla daf leen a defal ay xeet ci aljanna xeeti ñooñ aljanna mi ngi aju ci kaw seen xeet ya ñu amoon ci nekk nag yàlla toogal suñu wala nga ju nekk nag danañ ko gis yàlla am na ñoo xam ne koori feeg tabaski rek la ñu am ci xeet ñooñu daañ gis yàlla ñaari yoon at mu nekk am na ñoo xam ne jumaa ji nekk am nañ xeet ñooñu danañ gis yàlla caa juma ju nag am na xam ne danañ gis yàlla suba ngoon am xam ne danañ ko gis juróom yoon li ma li juróom am na ñoo xam ne dañ ko gis ci gendeeku bu nekk mooy xaarifi na yi nga xam ne ñoom mosuñ leen a xiit walis gis yàlla naka noonu itam duñ leen xiit kem torfatal ayni suñ leen xiitoon ci aljanna yàlla kem xool xam su rek ñu nga bëgg a génn aljanna su ko defee nag xeet yooyu yëpp bu ci nekk yàlla na leen jox su loo xam ne mosuñ koo gis su ko defee nag gis na ñu nag mooy mu jëntalag xéewal yëpp leen di terale kooku mooy ndolli gi yàlla dolli ku gëm yàlla ndollee ngoo ndolli mooy buñaa jënde ba noppi ñu buñaa la ñun jënd nañu aljanna ji laa ilaaha illa Muhammadu rasulullah ba noppi li yàlla dolli gannaaw aljanna moo di lan moo di ñu gis ko gis yàlla moo ëpp aljanna fu moo gën aljanna bu ñaa kay mës da ëpp njëg bu ñaa bu ëpp njëg amul fenn lu may fii ci aljanna ñooñu aljanna bu leen yàlla fayee aljanna seen jëf ba bu ñaa bam leen